alhamdulilah waxda wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi nu ngi tax sunu borom subhanahu wa taala di julli di sëlmal ci ab yonenteem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noo ngi ñaan sunu borom ci tawfiqam ak ndimbalam yal na yàlla subhanahu wa taala boole ñu jéggal baal nu ngi ñaan sunu borom mu nangul nu li nu am ci ay yiw te barkeelal nu li nga xamante ni mooy li ñuy dundee waaye jéggal nu li nga xam ne am nañ ko ci ay recc rëcc innahu waliyu zalika walqadiru alayh mbokk jamono yii comme ni nu ko fàttalante woon ci sunu xutba yële yi dëgg la ñu ngi dund ci ay jafeñ-jafeñ donte jafeñ-jafeñ yooya kat boo ko gam-gam léegi la sunu borom di def ci ay xéewalam daanaka dafay nuur moom jafe-jafe yi ci biir géej gi xéewale di su boobaa daf fay ànd ak lool lépp doomu aadama yi la leen waroon dëkk mooy dellu ci yàlla subhanahu wa taala dëgg dellu tuubal ko ñaan ko baalu ko toroxlu ko ngir sunu borom subhanahu wa taala mën noo nangul jéggal nu woyefalal nu yombalal nu dund doomu aadama du ñu def lool allahuma nutul yi am ci ay xeeti jafeñ-jafeñ jàpp nañ ay solution yu ñu jàpp ne moo koy turbe bokk na ci solution yooyu benn ci xutba yi weesu lu ko mel ni di jàmbat te mbokk yi xam ngeen ni jàmbat fajul dara waaye bokk na ci solution yi it nag nit ñi di jéem a seet xeeti wutinu alal yoo xam ni amal na ñii sax xam nañ ni baaxut waaye ña ngi koy def ngir di sukkandiku ci dund gu metti sunu xutbay tey day ñoo koy def ci axbatul makatib façon anam yi gën a bon ci anam yu doom aadama di fàggoo alal borom bi day subhaanahu wa taala dafa diggal jullit yépp nañuy wut lu lew di ko fàggu bàyyi lu te sori moytu seytaane mi nga xam ni moo leen di taaralal loolu ba doomu aadama yi defe ni lu rafet la di ballawtiku ca biir musiba yooyee borom bi subhaanahu wa mu ni yaa ayuha nnaas yéen nit ñi kulu mimma fil ard xalaalan tayiba lekk leen ci li ci kaw suuf lépp ndax yéen a ko moom waaye nag xalaalan na nekk lu dagan tayiban nekk lu teey wala tattabiu xutuwaati shaytaan bu leen topp pexey shaytaane ak ay jéegoom ndax innahu lakum aduwun mubin shaytaane seen noon la bu fës bu bér boo xam ni ba mu leen déclaré ak noonoom ci yéen yàgg na loolu mi ngi suratul baqara sunu borom subhanahu wa taala digal yi nanuy lekk lu teey lu lew lu dagan tey moytandiku lu xaraam lu bon lu sibu lu sànge sunu borom mu ni ya ayuha alladina amanu kulu min tayibaati ma razaqnaakum ee yéen ñi gëm yàlla lekk leen ci lew yi teey te baax te rafet yi ba leen daganal in kun waskuru lillah ngeen di sant in kuntum iyyahu taabudun su fekkee nangu ngeen ni leen yeneen yàlla juy dig la ñuy def di tere ñuy bàyyi judub suñu borom yonent bi day sallallahu ci benn xadis bu gudd te wér mu ni inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba mayam ngeen ni yàlla day ku laab la ku teey la ku set la mu ci ay manki manki ku bëggut dara lu salte la ku bëggut dara lu tilli la moo du jëw fa moom du ko nangu lu baaxut du ñëw fa moom du ko nangu waaye lu sibu ak lu dagarut du ñëw fa moom du ko nangu yent yàlla bi mu ni yàlla de dafa digal ñi gëm yàlla lim digal yonent yi ndax dañu ee yéen yonent yi kulu min tayibaati ma razaqnaakum na ngeen lekk kulu min atayibaat lekk leen ci yu teey wa amalu saalihan te ngeen di jëf-jëf yu baax loolu la yàlla wax yonent yi amaa nit ñi ne sunu borom dane yaa ayyuhan naas kulu min tayibaati ma razaqnaakum lekk leen ci yu teey yi ma leen wërsëgal te bàyyi yu sibu yu bon yi in kuntum iyaahu taabudun su dee nang ngeen ni kenn rek kay yàlla duñu war a jàmm muy suñu borom yonent ba mu noppee ca loola mu nekk li mu ni benn waayaa ngi nii boo xam ni boo ko séenee da nga koy yërëm kawar yi boppam nga cuqaaral lool ndax koo feñee tànk yaa nga pënd lool ci lim ñuul yére yaa nga salte ndax koo fóot foo ko fekk ma ngay guddali tukki tey ma nga fii suba ma nga fële ginnaaw suba ma nga fële lépp mi ngi fàggu lu dagan mi ngi fàggu lu mu dundee yonent yàlla bi mu ni mi ngi yëkkati ay loxoom nii na yaay day ñaan yàlla ay soxlaam yonent yàlla mu ne koo xam ni la muy lekk daa araam li muy naan dafa araam lam sol dafa xaraam ba pare la muy dundalee aw yaramam dafa xaraam fa mu dëkk sax lu araam la tabaxee mu yëkkati ay ñaari loxo nee naaye yaay day ñaan yàlla sunu borom mu ni jan yàlla laa moo koy nangul laa xamut fa an naa yustajaabu la kii ku koy nangul ka kan lay ñaan xanaa ñaan du yàlla bu dee yàlla lay ñaan doo mu xam du nangu ndax yàlla du nangul ku yi nu xam ni bokk na ci fàggu téef yi gën a bon yu doomu aadama yi di fàggoo tey mooy riba ak ay xeetam ak anamam yu bari xanaa bunt bii de danoo mujjoon di dab dabaatal naan day bu nu bàyyi xel tuuti jiitaloon ab xutba ci wax lan mooy riba ak xeeti ribaaya ba noppi doo ko wax man bon yi day moroon gën waaye du ñàkk laal la des na ci mboros tuuti ñàkkul ni ay xutbaa ngi ñëw yoo xam ne des na ko def ci yan anam mooy yoo xam ne yu siiw la tey ba ay jullit sax di ko jëflanteel te anam yooyu anam yu xaram ndax riba la bokk ci riba la bokk riba ci boppam daa bokk ci xeeti fàgguteef yu bon yu salte yàlla gërëmul subhaanahu wa taala sunu borom day ba muy melal riba daf koo melal ci melokaan wu sibu wu ñaaw sunu borom mu ne alladina yakuluuna riba gaa yi nga xam ne ñoom day na ngay dundee riba laa yaqumuuna illa kama yaqumu alladi yataxabatuhu alcheytaanu min almas ni ñii riba bàyyi leen may may leen aw fan rek na gudd fan fekke na gudd fan fekke sunu dekkee àllaaxira ba génn ci seen bàmmeel yi laa yaqumuuna duñ mën a jóg taxaw illa kama yaqumu alladi yataxabatuhu alcheytaanu min almasti lu dul dañuy mel ni waa joo xam ne sax duñ jinnee ko jàpp na muy kadd-kaddee di lox di yërëmtalu di tërëf di waaj a daanu sunu borom nee ku lekk doon lekk riba ci àddina buy dekki àllaaxira ci bàmmeelam noonu lay mel imam ibni kathir mu ni laa yaqumuuna min xuburihim yawma alqiyama illa kama yaqumu almasruu xaala sarai ku dina jàpp ba muy katti katti mel ni ku naan sàngare kërëb di waaj a daanu ñu koy yërëm muy lox ibni kathir mu ni bu ñuy génn ci seen bàmmeele ñoom lekk kati ribaay nii la nuy mel xabrul umma wala ibni ibni kathir ba léegi mu ni seytaane yi bu jàppee nit nag di ko sayloo mu ni na muy mel ci yërëmtalu mu ni noonu lay mel bu fekkee day faatu ibni abbas mu ni kii lekk riba de bu ko yàlla dekkalee mu ni da dafay mel ni ab dof buy tay mu ni noonu lay mel bala ñu koy yóbbu ci mbugal ma koy xaar toxal nañ jëlee ci buxaari mu nettali ci xadis bu gudd boo xam ne samura daf ni jundub moo ko solo te xadis bu wér muy nettali ak gént goo xam ne yonent bi moo ko géntoon sallallahu alayhi yi xam ngeen ru'yal anbiya xaq gént ak yonent bokk sunu gént maanaam ñun dañuy gént yeewu di mën naa nekk dëgg mën na ko bañ a nekk mën nga am ku la ko firil mën nga ko bañ a am waaye ab yonent moom lu mu gént moom la am ñu wan ko ko ñoo bokk yam ndax loolu lu am la yonent yàlla daa tëdd ba guddi sunu borom gént gént sunu borom géntloo ko yonent bi di gis ña yàlla lay mbugal ca bàmmeel wala ca àllaaxira seen mbugal ma nam mel xam ngeen ni bokk la ca gént googa yéen ci yàlla bi gis nee na gis na ay jigéen ñoo xam ni ay weñ lañu lonkal ba mel ni lonkukaay ay weñ lañu lonkal ba mel ni lonkukaay ñu takk ko ci seen ween yi di leen sandaamtal ñuy wat ba mu laajee jibril waaw ñii ñoom ñooy ñan mu ne ko mooy jigéen yi nga xam ne yàlla da leen di wërsëgal ay doom ñu lànkali duñu leen nàmpal di leen nàmpale ay biberon wala boog seen i liggéey tax na ñoom nee na ñoo mënuñoo nàmpal ñu seet beneen xeet wuñ def xoolal jooju musiba ak nit ñi tey dañ koy def romb na aw xur woo xam ne kattan nuur comme fuur xet bu salte di ca génn am ndox di jaare ca kaw di wadd ci suufu gaaya ñu def yaramu neen ay góor ak jigéen di yuuxaloo mu laajte ñii ñan la mu ne ñu ne ko ñii ñooy njaalokat yu góor yeeg yu jigéen ci àddina rombate na benn waay boo xam ni ci tefes la nekk yor ab cal def ko ay xeer am ku ne ca biir di feey su féeyee ba ñëw génn bopp bi rek jàpp ni génn na ci des rek borom xeer yi jël ko daal koy logal ay xeer ay fonkali xeer waa ji day mel dañ koy yebal pour mu ŋaan su dikkee ŋaan rek ñu sànniw xeer ci mu day tiit yëf yi met ci biir mu demaat ba ci beneen côté jàpp ni foofu lañ mën a génnee mu génnaat daal di ŋaan di xëxët rek ñu jëlaat aw xeer dóoraat ci gémmiñ gi mu nuuraat di wut seen fu mu génnee noonu daal lay wër rek yonente bi xool mbir ma mu yéemu lool mu laaj Jibril waaw kii kan la mu ne ko kii mooy ki doon lekk riba ci kaw suuf bi muy dund mbokk yi ñooñu day yeeyoo nañ lu nii lu tax suñu borom ni daalik li tax ñu def li mbugal mu méttee nii bi annahum qaalu innama albayu mitlu riba ndax ñoom ñoo ci àddina ah riba de garaawul ndax jaay ak jënd ak lekkum riba ñoo bokk yam kese wa axalla allahu bay wa xarama riba yàlla mu ne déedéet ndax maa daganal jaay araamal riba ñoom kat danoo gàllankooroon wala di lànk santaane suñu borom ndax nee ñooy riba ak jaay ak jënd bokk yam te xam ngeen ni ñaar yooyu nuróowul sax bay bokk borom bi subhanahu wa taala mu ni maa ngi leen di xeñam loo ngeen tuub yéen defkatu riba yi ak lekkati riba yi fa man jaahu képp koo xam ne dikkee na ko mawaidatun ak fàttali ku mel ni ku tey kii bàyyi ko ci alxuraan wala sunna te fekk mi ngi doon jëflante ci riba fantaha mu tuub xolam tooy mu yëg yàlla yëg ni def na musiba fantaha mu bàyyi lam doon def lépp ci riba ah fa lahu ma salaf sa capital yàlla may na la ko allahu akbar ma koy xool leen yàlla ni mu baaxee subhanahu wa taala waa ji doon liggéey ci riba nekk ci yëngu ci riba di lekk ci riba waaye xamul woon ñu waar ko fàttali ko xolam tooy te jot naa lu mu dajale ci riba suñu borom ni fa lakum ruusu amwaalikum jëlal sa alal sa capital yaa moom nag bul defaat lenn luy jëm ci riba bu dee matériel la nan ko sànq bu dee loo ci la pare kenn du la tojal tabax ba waaye dañ naan laa ah, def nga bàkkaar kat tuubal dellu ci yàlla waaye bul ko defal waaye nag wa amruhu ila allah ma nga dellu ci suñu borom suñu borom xoolee ko xoolam xam ni ku dëggu la suñu borom baal ko su suñu borom xamee ni kii kat ah, ma daal di dellu ci ku ci li wut lekkum riba ginnaaw boo xamee def xaram ah fa ulaayika asxaabu naar ñooñu de bu ñu dee nañ xam ne a lan jëm sunu borom mu ni hum fiha xaalidin te dañuy sax dàkk ci biir sawara si yàlla na yàlla booluñ ci musal borom bi wa taala mu ni yëg leen ni ribaade yàlla du ko megg meggal mu jëm fenn déedéet allahu akbar mbaa da ngay romb waajoo xam ni ak këram daa rafet mu defar ko ba muy boy boyal karle ba mel na mu war a ñeede takk na ca jabar tabax na ca kër am na ca taaxam kaw moo tax mbokk yi boo dee xool musiba yi yi am tey man damay wax mbokk yi ni léeg su may seetaan ñi ñuy tuddee ñooy ay intellectuel wala ay ñu xaral ñu woo leen ci débat diine nee ñooy zaamu ñuy waxal diine crise am ñu di ko jàngat billahi alladi la ilaha illa huwa bañ dama dama leen di xeeba xeeba xeeb ba sax lu tax ndax damaa jàpp ni kiñ ñu ñor na intellectuel la diina jariñ na ko buy jàngat benn mbir du ko jàngat ci benn sens mbirum économie mbirum crise mbirum nangam mbirum nangam déedéet waaye da ngay gis wax boor yëpp waaye mbirum diine moom daanaka dañ koy sega mooy dinañ ko tudd dañ koy moros jàll fekk déedéet même boo gëmul diine boo leen ndax moo bokk tey ñaar ci ay sëy ñooy tas ay taax yu maat ay marché yu lakk ay nangam nangam yooyu yëpp bu ko kenn jiiñ ñuy defar courant bu ko kenn jiiñ waaye da doon da doon jëfandikoo courant ba ba sotee déedéet waaye buñ koy jàngat nañ gën a xóotal xool ndax suñu borom mu ne yamxaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat yàlla mu ne alal yi riba moom du megg megg lu jëm fenn ndax yàlla ci boppam ah moo koy fëtëxal yàlla ci boppam mooy yàq la nga xamante ni mooy alali riba waaye azaka nag di ko génne ci alal wa yurbi sadaqaat yàlla dana barkeel la nga xamante ni mooy sa alal kon mbokk yi sunu borom bi subhanahu wa taala mu ni yàlla di bëggul képp ko xam ni ab kéefër na waaye ab tooñkat la ñu xam ni mbokk yi lépp loo xam ni doomu aadama liggéey na ko wala mu am ko ci riba wallahi kooka yàlla dana ko toroxal fi dunia qabla al axira am na koo xam ni boo ko seetloo ba këram ku tas ribaa ba mu fa dugal moo tax jabaram ju fa dugal daa ma daal ribaa fa dugal tool bi bekkoor ribaa fa dugal càcc giñ ko càcc ribaa ba mu fa dugal bal sax ji mu dem hôpital lim amoon ci alal lépp mu fere ko te ba pare doom ja dee fekk yàlla mooy maxq al al al al al riba yamxaqu llahu riba yàlla nee na maa bu dee azaka nag ma barkeelal ko kon yooyu doomu aadama ci moom bu ñuy jàngat benn mbir mu amati na ñuy bàyyi xel yi nga xam ni du ñu génne azak ak ñiy liggéey ci xeetu riba loola borom bi subhanahu wa ci boppam da cay def la nga xamante ni loolu la digee woon mbokk yi borom bi subhanahu wa taala mu ne yaa ayuha alladina amanu e yéen ñi gëm yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla wa daru te ngeen bàyyi maa baqiya min riba mbooleen li des ci anamir yi ñu jëfandikoo riba ba leen ba leen ko kata fa in lam tafaalu bu ngeen ko defut fadanu bi xarbin min allahi wa rasuli sunu borom mu ni déclaré naa leen guerre nag préparé maa ngi ñëw mbokk yi kan ci jaame yàlla yi mooy koo xam ne aw fitam ak ñemeñam yegg na ci nekk ci loo xam ne sunu borom nee na ko boo ko bawut maa ngi yow danañ guerre ba pare mu continuer caa nekk tey dafa mel ni riba ci boppam nag ah daa bokk nag ab baxar riba xalaalan léegi dafa bokk ci minal muxar muxallala ci ñuy daganal la bokk gis nga bii may wax ak yow xeeti banque yi li muy bari bari bari bari li ci ëpp kiriba la jëfandikoo moo xam nu ko mën ci tuddee nag moo xam ci famekaat yi la moo xam yooyu yëpp ay xeeti riba la kaay ma lebal la cinq cent moo xam joxe nga balaa ñu joxe wala joxe woo ko sa affaire la waaye bis boo koy fay di nga ci teg nangam loola ci riba damay jaay sama mbir mi junni laa koy jaayee waaye su may leble six mille laa koy leble loola ci xeeti riba yi la bokk dama laa jaay ab mbir ab woto ma jaay la ko nga dem ba ci biir ma jaay la ko cinq millions nga dem ba ci biir am problème nga ñëw ma jële ko jëndaat ci yow nga ne ah boo mënul cinq quatre millions kat damay nangu loolu ci xeeti riba la bokk su ma ko lim damay ragal dana jël sunu xutba kon damaa bëgg wax xeet yi nga xam ni dafa nekk riba te ñun xamul ni sax riba la dafa bari parce que ay jullit ngi nii yoo xam ni ñoo gën a bañ riba te ñu ngi jëfandikoo riba te loo ci gis bu da nga gis am taal ñu tabax ko fer du ca am béton du ca am ah mu nekk taal moo xam taal mu njoogaane la sa maam dund ci ba dee ci ba dee taal mi tax dëgg këj ba tey nga fekk ko fi parce que ñoom dañ doon moytu dik lu xaram lu xaram lépp lu mu jógee wallahi yàlla moo koy barkeelal tey nga gis nga tabax taaxam kaw fer am ca béton am ca lu ca war a am am ca taal ma balaa ngaa pare bu commencé fiché nga am ñaari fan ñu ni bu ñuy jàngat lan la ñuy wax liggéey baa baaxul ku ñuy felen ingénieur deel ñu ngi koy bu ñuy jàngat dañoo war a dem ma ñu tàmbalee ko ca reen ya doo ko jëm ca garab ga ca kaw ca xob bi beneen da ngay gis koo xam ne jaar na fa mu war a jaar ba jël soxna waaye jàmm am ci biir këram lu tax yàlla mooy max baraka am na koo xam ni góorgóorlu na ba investir jënd ab tool jënd ay machine def defal defar defar xëy xëy ma seen i faan affaire yi yàqu xuloo lu surgee tool ba jaar yii ay xeeti mbir la yoo xam waxuma saa amee lee waaye dama ni fukk yu am juróom-ñeentee lii la beneen bi ci mooy kenn ku nekk ñun na xam ni musiba yi te nekk wallahi dem fekk mit mu toog ay tan di ko lekk nga bokk ak tan yi lekk loolu moom moo gën a oyof fa yàlla subhanahu wa taala mbokk yi nu xam ne su fekkente ni l'islam lu lënt lu lënt rek waxuma la lu araam de waxuma ribaade lu lënt rek islam day taral ci nañ ko bàyyi yéen ci yàlla bi neen li dagan leer li xaram leer la ca diggante ba ay lënt lënt ya ku bëgg a musal sa diine lépp luñ ne la daal lënt neel banaa ko bëggatuma loolu képp ku bàyyi lu lënt ñoŋeel nga sa diine ñoŋeel nga sa pas ku tàbbal sa loxo ci am lënt tàbbal nga sa loxo ci lu xaram na lii lënt la ca diggante ba am am lii araam na lii li ca diggante ba am lënt léegi lënt xoolal fu muy a bokk ci yu xaraam ndax jeexitalu xadis moo la koy wan képp ku tàbbal sa loxo ci yu lënt mu ne tàbbal nga sa loxo ci yu xaraam kon moo lay wan ne am lënt akub xaram benn la lii moo taxoon mbokk ñu jiitu woon yonent bi ak saxaaba yi ak ñoo mënoon a moytu di ko am lënd xam ngeen ab yonent lu lekk sax yonent bi daa mën a benn doomu tàndarma xiif lool dem ba koy waaj a lekk xel mi daal di ko yor daal di ko ah waaw est ce que wóor na ji sarax la am déet mu daal di sànniwaat doom benn ko Abu Bakr Siddiq ab jaamam dafa mës a ñëw andil ko maanaam dañuy jaam bi soo ma joxee nangam goreel jàng saa bu xëyee liggéey boo amee suñu deux mille cinq cent journée xëyee rek jox ko Aboubacar benn bis mu ñëw te saa bu yegsee xool Aboubacar saa bu yegsee danaa ko li am foo ko jëlee mu ne ko damaa yenu noonu kenn ak dàmb mu fay ma mu ne ko bismillah damaa defoon nangam ñu fay mu di ñax mu jëlee benn bis nag Aboubacar dafa xiir ba fàttee laaj jaam bi li nga am tey foo ko jëlee Aboubacar lekk ba suur na xelam doog ciy dem mu ni jaam bi li nga am tey foo ko jëlee jaam bi daal déet jaam ko waaw sang bi lu tax yow saa su ma musaani ñëw danga may laaj li nga am foo ko jëlee tey laajoo ko Abubakar ni ko damaa xiifoon ba tàqalikul sama sama allahu akbar mun ko waa li nga am foo ko jëlee mu ne ko man ne takasantu li rajulin fil jahiliya daa am waa joo xam ni dama ko doon gitaaneel di ko wettaawal di ko seetal ba ñu ne ca ceddo ga waa ñu rëcc ma tey ma génn rek taseeg moom ma ne am naaw kaañ mu fay ma allahu akbar undur ila sadiqi l ummati Abubakar fekk Abubakar lekk na ko ba noppi mu daan jël baaraam dugal ci biir di lool di wacc di lool di wacc ba waa kër gi yëpp génn seen néeg wër li nga gis nii mooy lan yow da ngay rey sa bopp mu ni wallahi bu sama ruugi dana wadd waaye dara des ci biir am ko kër di lool di lool di lool bay génn deret benn waaye moo ñëw daal di koy dimbali ma ne gis nga ba bëggee mu dañ da naan naan naan ba biir bi set jàllat ndox rek nga lool ndox mi buy génn day génn waale lépp noonu la Aboubacar def ba lam lekkoon lépp génn mu daal di sant yàlla dem tëddi am ñii noonu lañ doon ko lu xaram xoolal Abdullahi ibn al Mubarak Abdullahi waaye man ma moytandiku ab dërëm bii daa lënt ma moytandiku ko ba du ma ko lekk mu ni moo ma gënal ma yëkkati million saraxe ko fi sabilillah allahu akbar ndekete day lekk-lekk baaxu mbaay yi mbaay yi ak meññeenteem doom a koy feeñal xam ngeen kii ma wax nii ku baax kii kuy baayam mubaarak mooy baayam xam ngeen kuy mubaarak benn gardien la bu doon garde ci toolu jàmbur benn gardien buy garde toolu jàmbur mubaarak amagul soxna benn bis borom tool bi ñëw am ay gan ni ko daggal ma ay grenade waa ji mubaarak dem dagg ay grenade yu ñurut mu ñëw daal di koy dagg ni ko yow xanaa da ngaa daggal ma grenade ngay dagg yu ñorut ponkal mu day ñëw xàmmeewoo bu ñor ak bu mu ne ko man de xàmmeewu ma grenade bu ñor ak bu ñorut ñaata at la ci bu ñor ak bu mu ne ko wallahi ba ma fi dalee garder ba léegi benn doom musuma ko lekk mu leen mës ngeen a gis waa mu lekk benn doom ci tool bi ñëpp seetlu ni musuñu ko gis mu lekk benn doom waaji ne ko lu tax nga def loolu mu ne ko nax danga may gardala da nga maa jox ndigal may lekk ci garab yi mu ne ko déedéet mu daal di koy jël yóbbu ko këram ne ko seetal sama jàng ji koo ci bëgg ma may la ko jabar kam ko may moo jur Abdoulaye Mbara bi ma nettali léegi kon ndekete li ngay fàggal sa njaboot day feeñ meññante ma mi ngi say doom ab saxaabi bu mag mi ngi mu ni bokk na ci lii wane ak ragal yàlla tamaamu taqwa tamaamu taqwa allah ah, tamaamu taqwa an yattaqiya allaha al abdu hatta yattaqiyahu min misqaali darratin wa hatta yatruka ba'da ma yara annahu halal xasiyata xasiyata an yakuna xaraaman abu darda mu ni lay wane ne yow mii ragal nga yàlla mu ni da ngay bàyyi bay bàyyi lu tuutee ni bépp suuf ngir rek bañ a tàbbi ci loo xamante ni am lënt la wala bañ a tàbbi ci lu xaram mu ni faf tax da ngay dem ba mbir xam ni mbir mii dagan na ci yow waaye boo toppee daganaay gi mu yóbbu la ci lu araam nga bàyyi loola allahu akbar xoolal imam ju mag ji xasanul basri imam ju ji nga xam ni bokkul ci saxaaba waaye kër yonent la juddoo sallallahu alayhi wa sallam imam ju mag ji xasanul basri biir kër yonent bi la juddoo ummu salama di soxna yonent bi moo amal ab bu jigéen jaam bu jigéen boobu basri waa ji soxna yonent bi di salama daana téye gone gii di ko nax yaayam daa mu di ko nax di ko nax di ko nax ba jooy ummu salama di soxna yonent bi sexal ko weenam ngir di ko ko téye mu noppi kii mbër la imam xasan al basri mu ni ma zaadi taqwa bil muttaqin xatta taraku kasiran min alxalaali maxaafata alxaram ragal yàlla bàyyiwul ñi gëm yàlla ragal yàlla bàyyiwul ñi gëm yàlla di leen tiital ragal yàlla bàyyiwul ñi gëm yàlla di leen tiitloo ragal yàlla bàyyiwul ñi gëm yàlla di leen moytandikuloo bañ dem ba bàyyi ay mbir yu ñu xam ni dagar na ndax rek ñu ngi tiit mu yóbbu leen ci lu xaram allahu akbar ku dem ba mu wóor la ne lii lu dagar la ci yow imam ahmad ah léeg-léeg doom bi abdallah dafay xoo lu tax yow nangam doo ko jëfandikoo te nangam di dagar imam ahmad mu ni man de damaa bokk ni may yeree sama bopp mooy bàyyi ay mbir a dagan ngir bañ a tàbbi ci lu xaram imam ahmad yeggoon na ci mooy tandiku dama ñu la alali buur ku ci mata laal ku ci mata laal ku ne allahu akbar boo ko joxee lekk sax mu suuf keroog bi mu faatoo ay doomam dañoo daje ñu ni siwo bu ñu koy sàngee sax nañ ko jëndi maam te ay doomam ne fi lu tax ndax ay am na ci ñoo xam ni buur force neen ba jox alal la mooy loolu lu daganoon la sax waaye moom moo yeggoon ci mooy tëddiku foofu benn doomam ngi nii bu ñuy wax ku ragal yàlla ku ci jamono yi buur yooya joxoon nañ ko ci seen alal ya benn bis imam Ahmad dafa xiif ba sonn lool gars gaw similaat saala tax tax ñu lakkal ko mburu andi mu ne waaw gaaw mi fu mu jógee ñu ne ko fuuru bii lañ boyaloon fa lañ ko lakkee mu ni dem leen ngeen delloo mbur ma te buntu bi doxoon sama diggante kër Saalix xattal leen ko ñii fii lañ yeggoon ci ragal yàlla ak mooy tëddiku moo tax liñ lay nettali ci ñoom mu mën a nekk wallahi inna fi hada la balaagan li qawmin aabidin inna fi hada la dikra liman kaana lahu qalbun aw alqa samaa wa huwa shahid bu kenn nit ñu yàgg ñaa mën a mel noonu au hankay am na ñoo xam ne ñu ngi dugg fii ci suñu réew mi barki démboo njaay loo xam ne man mi su ma ko fekkee woon wala boog xanaa xam ne di dem ba ci àll bi fas wi daal di di lekk ci mu taxaw ba fa ne du ko bougé lu dul borom tool bi daa ñëw mu jéggalu ko mbir na foofu mbir yi yeggoon na fii ñu nekk lu jege lool lu mu fekkee wala loo xam ne buñ ko fekkee wutit yàggut ay nit yoo xam ne dañ doon moytandiku ba saw bëy wala sam xar bu dof dof loo ba lekk loo xamante ni yëpp jaambur la da koy fay ba noppi rey xar moom dootul amati place ci biir kër gi yii ay mbir dooy xuraafaat yu yu sekk la kon mbokk yi ñu xam ni mooy te ndikum lënt ni mu garaawee kon lekk riba moom taxut di wax kon yii nga xamante ni ay xeeti buntu la ci wàllu riba nit day jékki-jékki nekk ci jafe-jafe solution mooy leen kaay ñu lebal la xool li ñu jur ci ay jafe moo xam ba mécas nga ko jëlee moo xam banque nga ko jëlee banque niyoo banque nalewo banque lalewo te kéemaanu yàlla gi mooy te lii may wax su ma koy wax ca kaw xam naa li may wax bu baax ñiy gëstu ci wàllu économie addina bi suñ may dégg xam nañ li may wax lan la information yi may wax yu wér la yoo xam duñ ko wax public ci rajo yi waaye nag boo jógee waaju xam économie addina bi ni muy doxee laaj ko lii ma la wax addina bi ci boppam war ngal kapp ni muy doxee réew européen yi ak Amérique ak li nga xamante ni mooy réewu at yi turu riba biñ doon def dafa bari woon a bari bari bari ba jéggi dayoo ba ñoom dañoo dem ba gis ni turu riba bi ci boppam mooy yàq ñoom gëm nañ ni lislaam wax loolu wallahi la gëm nañ ni loolu day yàq xam nga fi lu mu leen lu mu koy wane mooy dañoo dem ba léegi ñoom dañoo commencé di wax nañ wàññi turu riba yi cent banque yoo gis yi bu ñu daanu wutit ñi ngi am ay jafe-jafe li ma wax du sama yox de information la fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun dem nañ ba wàññi nañ taux riba bi bal am na ci yenn ci ay réew yoo xam ne seen i président nangu nañ ñu def ci seen réew ay banque islamique ndax rek gis nañ ne riba bi ci boppam mooy daaneel économie li may wax du sama wax de li may wax ay information yu wér la yu ñu am lay wan ni kon nit ñi ci boppam dem nañ bay commencé yëg ni ndek riba day yàq bal ba suñu njiitu réew bokk na ci ñuy jàpp ni banque war nañ ko mën a nangu ñu def ko fii ngir lan yëg gu nu yëg ni banque buy jëfandikoo ci weccatu l'islam nga xamante ni amul teg riba amul dara ku ñu war a yar yar la ku war a dóor dóor la ku yàq na nga fay noonu la l'islam di doxale waaye nag amul teg ay intérêt wala teg li nga xamante ni mooy ay riba kon mbokk yi ñu xam ni bokk na ci musiba yi lekk riba di indi day wal xol waaye day tax nga ne ku sàggan ba mel ni war a tax bokk na ci musiba yi day tax say jaamu yàlla dootul nangooti bokk ci musiba yi day tax sa mujj boo duggee bàmmeel la fa fekk mooy li ma waxoon sànq bokk na ci musiba yi mooy day waral nga doyati lool ñi la respecté woon sax dootul la bokk na ci musiba yi day dem ba nit ñi dañ lay bañ te doo xam loo def nit ñi allahu akbar nit ñi ci boppam defoo leen dara lu dul daal sa kër gi nga tabax karle ko yëkkati ko ca kaw ah waaw waaye yaa ngi ko jaaral ci riba waaw ñëpp bañ la ñëpp nga defee dañoo soxal dañoo iñaan fekk déedéet du mbirum soxal ak iñaan yàlla ci boppam moo bokk ci doxalinam kuy jëfandikoo riba yàlla daf lay day jël nit ñi xoli nit ñi ñu bañ la bokk na ci musiba yi sa jabar sax day bokk ci ñi lay bañ musiba yi am ci tasum sëy yooyu yu may cala dañ koo waxut maa xam nga ni daamar yu bari day romb ci tari maa xam nga ni kër yu bëree bëri yoo xam dañ koo tabax maa xam nga nit ñi ba ñu dem Europe mbaa xam nga ni milliards yi ñuy fay di ci àll bi di ko daggee ay téere ki nangam wallahi rabbina subhanahu wa ci ci banque la jóge ci ay xeeji riba la jóge damay dem lépp banque pour jënd ay hectare ngir daggat ko jaay damay ñëw def ci kër yóbbu ci sama doom mu tukki wala ma def ci nangam nangam wala ma def moo xam yi ngeen xam nga xam ni boo ko waxee xam nan ko boo ko wax ko xam nan ko musiba yi ñuy jural mooy yi ñuy gis wala hawla wala quwwata illa billah na ci musiba yi mooy day tax taw di yéex a te la ca wàcce ku néew yàlla du ko barkeel subhanahu wa taala yii may wax defe naa dooy xuraafaat yu ñu teg ak sunu bët na bokk na ci musiba yi nga xamante ni daf koy def mooy yàlla ci boppam li amoon barke lépp da koy dindi démb démb démb maa ngi dugg ci benn oto góor gi ci góor gi dawal oto bi di ma nettali ay année soixante-dix-neuf mu wan ma benn place ñu rombal ma fii laa doon liggéeyee jamono jooju mu ne xam nga ñaata laa doon fayee ah? mu ne xam nga ñaata laa ko quarante fam doon fayee ko mu ne ma gis nga fi ne bu ñu xëyee suba mu ne juróomi dërëm rek juróomi dërëm mën nga cee ndékki ba suur xam nga lu ma ko ci tegal ma ne ko jamono jooja barke moo amoon ci dund gi booba la xaalis gënoon a jafe waaye booba la barke ëppul ci dund gi tey la xaalis gën a bari tey la yàlla génne barke ci dund gi moo tax da am lu bari nga financé ko ba noppi du la doy te buñ ne taxawoon introsé la laaj la foo ko dugal doo doo xam sax ba lii ñun ñëpp lay dal lim lay wan mooy monnaie bi ci boppam la yàlla génne barke ay xotto ki kayit rek fi des bokk na ci musiba yi nga xam ne riba da koy def mooy yàlla ci boppam subhanahu wa taala day gaawe mbugal moo xamante ni da koy wàcce kon mbokk yi ñu xam musiba yii nekk ci riba suñ ko xamoon di deel na ko daw comme ni doomu aadama yi dawee bu séenee kay déglul xadis yi bàyyi koo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sahih muslim xadis bu wér yonente bi nee na yàlla rëbb na kay ak kay signé papier bi koy bi ñuy joxee riba bi maa ka koy tàppe ci ordinateur ba maa ka nga xamante ni moo koy yóbbu maa ki nga xam ni moo cay liggéeyee mbaa ka nga xam ni témoin kese la ca waaye lekku ca yéen yàlla mu ne hum sawa un ñoom ñëpp kiif kiif ñoo bokk yam yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ar riba salaatun wa sab'una baaban riba soixante ah soixante treize xaaj la juróom-ñaar fukki xaaj ak ñett riba am na ba ca gën a tuuti gën jaa oyof ci mbugal ah ba gën a yéen nit ki ñu may ko jabar yaayam moo ko gën a oyof riba juróom-ñaar fukki xaaj la ak ñett ñu may la sa yaay jabar nga jabaroo ko sa yaay nga jël ko mu nekk sa jabar moo gën a oyof fa yàlla nga jël xaaj ba gën a tuuti ci xaaji riba yi beneen a ngi nii yonent bi nee na sa si xadis boo xam ne alimam tabarani génn na ko te xadis la bu wér yonent yàlla muy dirhamu riban yakuluhu rajulu wa huwa yaalam ashaddu min sittatin wa talaasina zaniya benn dërëmu riba nga lekk ko te xam nga ni lii ci riba la bokk nga demoon njaalo ci juróom benn fukki yoon ak ñett juróom benn fukki yoon juróom benn soixante six fois nga dem njaalo ko loolu moo gën a oyof gën a sedd ci mbugal ma xaar ka nga dem lekk benn un benn dërëm benn dërëm boo xam ne ci riba la bàyyi ko fa kay fekk ki ci tabax kër ki ci takk jabar kajarab nangam ak nangam ak nangam kon mbokk yi ñu xam ne riba ay musiba la ak mbooleem xaaj yi am ay musiba la wallahi ku ci dugg boo tuubul dellu ci yàlla yàlla dina la toroxal fi dunia qabla al axira la maxaalata fi dalika nu ngi ñaan yàlla mu delloo si waat julli ñi seen diin delloo bu rafet ñi nga xam ne yàlla naftoo na loolu min xaytu alimu aw la yaalamu yal na yàlla wërsëgal leen ak tuub te pare wërsëgal leen ak nangu ñi nga xam ne tàbbee guñ ci yal na yàlla sàmm leen ba buñ ca mas a tàbbi ila axiri dahri bi karamihi wa juudi rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi laxirati xasanatan wa qina adaba annar rabbana la tuzig qulubana baada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab allahumma inna nasaluka alxalaala altayiba min arrizqi ya arhama arrahimin ikfina bixalalika an xaramik واغننا بفضلك عن سوا عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi